parti ak mouvement politique ñoo daal di booloo ngir rek dooleel candidature Bassirou Diomaye Faye njiiteelu coalition Diomaye président bi des coalition jamono ji mbëbëtam mooy élire candidat wam ca premier tour ya waaye jamono ji li leen gën a yitteel mooy xeex ngir libération maa ngi woo ñëpp ñi fi ñëw jóge bitim réew ni dañuy saytu ndax élection yi day jaar yoon ñu wax ci ñu taxaw ci lii deñ mais nañu xam ni Diomaye su génnul ci kaso fii Jomaay ton taxaw nekk benn fukki junni Jomaay téeméeri junni Jomaay million Jomaay danañu def campagne ci place ngir nag mu gagné dès le premier tour. ñu bokk ci bile coalition nag ànduñu benn yoon ci dàkkal élection présidentielle yi. mu nekk li nga xamante ne nekk na lëmbee débat yi jamono yile. nguur gi li muy tàmbali def mooy jéem a arrêté processus électoral bi jéem a taxawal élection yi. loolu amul fenn fenn fu mu ko teg mais nañu xam ni bés bu nguur gi jëlee décision ni day gàk gantal élection yi day arrêté élection yi ñun ñi coalition Diomaye Président le 2 avril danañu teg un gouvernement national jàkkaarloo ak ñoom mu des ay fan képp ci élection présidentielle yi coalition Diomaye président mu ngay gën di yaatu ginnaaw charte d'adhésion bi nga xamante ne formation politique yu bëri daal dinañ ko signé ba léegi ñoo ngay xaar ñeneen rejoindre bi les coalitions buñ sukkandikoo ci professeur Mary Teuw Niane